gox yeeg goxaat certainement YouTube bi dina dellu siwaat léegi xam naa problème internet bi moom ci kër gi war ngeen ci ut pexe ah, ndax day faral di am problème souvent internet. su defal wala. Euh, ñu ngi xool ba xam fu mu fu muy mujj y a souvent des soucis euh, avec la connexion d'internet euh, dans la maison Mbacké. <laughs> waaw moom de xam naa. da a euh, jaxasoo sax. waaw waaw dëgg la. waaye na ñëw na <laughs> dina dina baax léegi euh, euh, comme li sëñ Maodo wax léegi ci assemblée bi loolu moo ci am li jëm nag ci motion de censure bi ñuy wax nii defe naa noon la motion de censure ah. voilà nga xam ne waxuñu la maison kër de. motion. <laughs> waxuñu la maçon buy tabaxit. ah waaw Maodo kon wax ma nuñ koy waxee. motion ah da nga doon saboté legui dal ma ki yow koy togal ko togal si ñet bi adno amul solo mo lan ah motion de censure motion de censure <laughs> maanaam daal këyit wuy dakal li fi nek negu ah, ah. euh bu fekkente ne loolu loolu non loolu lañ wax ta nga xamantene man mën naa du ñew man man loolu dama cee comprendre lu bari en fait. Hmm. waaye lu jëm ci wàllu wate bisse yi Maodo doon junj léegi nga xam ne da gis koo xam ne dafa nekk opposition ba noppi. Hmm. Euh, bokk ci beneen groupe bi ba pare wateel ab ministre ab bisse man damaa jàpp ne loolu moo normal. Hmm. gis nga bu fekkente ne da nga naan lu bàyyi koo ca rek baaxut. radicalement nga xam ne yow da ngaa gumba tëx lu budget bu ñu di watee gannaaw wate la loolu baaxut loolu moom ma taxut woon ñu doon wax rupture ci assemblée nationale man li ma gëm mooy ne ñi xam nga ne ay opposants lañ hmm. pur et dur hmm. ñu indi benn budget boo xam ne dafa jëm ci éducation nationale ñu teg ko ministre bi défendre ko ñu wax mu leer ñu yëkkati seen baaraam ne wate naa ko hmm. parce que wateelu ma ko mais dama koy wate parce que dafa intéressé dafa dafa amal njariñ sénégalais yi moo ma wateel leen ko ëllëg ñu indi loo xamante ne nii débattre nañ ko ñu gis ne lii kat ni mu war a demee demeewut noonu ñu ne watewu ma ko gis nga lañ wateeloon démb mooy jox crédibilité liñ bañ a wateel tey waaye koo xamante ne lu jógee ci présidence rek bu ñëwee da ngay wate wala lu fa jógee bu ñëwee doo wate yow sa waaw ak sa déet ñaar yooyu ñoo yem même même kii parce que amatu sens parce que yow déedéet rek ngay wax man de bu ma nekkoon député tey jii président Macky Sall yóbbu ma fa ñu indi lu ñu débattal ci taabal ji ma gis ne moom moo ko fa yable ñu indi ko fa te dëppoowut ak euh, samay ngëm-ngëm dëppoowut ak samay xalaat bu ñuy watee du ma yëkkati sama baaraam waaye nag bu ëndee loo xamante ni dafa dëppoo ak moom dama yëkkati sama baaraam parce que nag jàpp naa ne as gor su ne nit ku ne ci liberté war naa am sañ-sañu di wax waaw ak déet mais xam nga tamit bala ñoo voté budget bi day ay débat waaw yi maanaam kenn ku nekk souvent li tax voté woo boo demee da koy wax danaan budget bi gis naa ne yow lii nga wax nii fii mais place sangam ndax daaw ba nga ne supposons 40 ah pour cent yi nga waxoon def ngeen seen loxo déggoon naa fi député député bu ne man du ma déglu xalaat du def dara lu fi ñëw rek lu Macky indi rek ma wate loolu am député ko fi wax loolu am na ah, am na ñoo xam ñoom c'est non loolu kay am na Mbacké dama ànd naa ci yow am na ñoo xam ñoom dañu faa toog rek pour voter ak oui ak non hmm. mais dama boo nekkee député bu fekkente ne yow bii ñu taxaw ñu teg naroo ko voter am nga droit bindu ci bu fekkee mën nga wax dem ca fa nga xam ni fa la sa moromi góor yëpp taxaw di wax tu prends la parole même bu dee 3 minutes la nga joxe raison yi tax yow xëy na wala tolof tolof wala benk ñeen koy dund yi nga xam ne gis nga ne budget bi fii dafay rëq wala fii nangam ak nangam fii dafa am ay contraste fii dafa am ay nangam nga nga boole yooyu yëpp daal ne nag man lii moo tax kët man du ma voté budget bi mais kay li garaaw kay mooy côté yëpp bu ci dul forces armées wala peut-être yeneen yi peut-être à la limite santé yi ci des yëpp mën nañ ci def débat mais la sécurité moom ça c'est autre chose mën na ñëw rek jàll parce que euh, loolu moom dafa am nu leneen nu mu tuddee loo xam ne nu jun ci dugg mais bu dul ñaar yooyu te santé sax dañ koy débattre ah, parce que santé bi dañ ko war a débattre waaw énormément de problèmes des difficultés problèmes urgence yi fi mu toll ba léegi euh, hôpitaux yi plateau technique bi et cetera léegi maintenant léegi nag budget moom nekkul ne fo parce que amul benn budget boo xam ne bi ñëpp a ci àndandoo. Hmm. parfois nag am ñoo xam ne dañ comme ni Mbacke anduma ci parce anduma ci rek yow amo benn argument mais am na ñoo xam ñoom bala ñoo ci bañ ne duñ ko voter dañu argumenter wax raison yi tax duñ ko voter so leen waxe ñu bañ yëkëti wala ñu bañ ko voter très bien en tout cas li leer ba leer moy gannaaw euh, déclaration politique générale bu Amadou Ba Demba ci assemblée nationale euh, une autre question se pose laata ñuy dem ci benen sujet bi nga xamné ne nañ ko lu bari Demba ci assemblée ba moy euh, dajé premier ministre wala ministre yi ci bopam ak euh, assemblée dañuy gis réew bu melni France c'est day arrivé souvent euh, par quinzaine de finales, la ñu koy def wala yoyu euh, premier ministre bi ak euh, ay ministres di dem Les assemblée lepp lo xamné ne conseil des ministres jël nañ ci ay décisions et tout ça dañ koy partager ak ak ak euh, député puisque député yi ñoo toogal askan wi ci ci assemblée donc du coup lii ni ñuy def événement chaque fois dañu jël temps boobu yëpp toute une journée hein ci déclaration politique générale donc c'est c'est bien parce que dina kii mais est-ce que warul nek lu régulier lo xamné ci temps bu limité aussi ko ci nek di nga euh, wax euh, euh, madame premier ministre wala ay ministre défendre seen kii et tout ça et député yi tontu et tout ñu paré midi ku nek dem sa yoon dem ci delu ci liguey bi et cetera itam war mëna nek dé waaw mais war mëna nek mais ni ñu ni ñu ni ni assemblée bi tëddee motax hmm. règlement intérieur yi bo défé sa déclaration de politique générale ba paré hmm député yi dañu am sañ-sañu kenn ku nekk wax ci xalaatam ba noppi. nga dellusiwaat leen tontuwaat leen. waaw ah non dama ne. loolu loolu c'est en fait. mooy déroulement bi quoi DPG bi waaw. mais je veux dire est-ce que régulièrement warta mën a. am waaw mais justement foofu léegi nag. foofu maanaam bu ñu gisee am transition bi laa doon def peut-être dootuñu ko gisaat assemblée. et pourtant war nañ ko mën di gis loolu loolu kay dafa amoon na fi sax dama lay fàttali Abdoulaye Boun Dionne bi mu nekkee premier ministre. Hmm. waaye nak loolu man nak loolu moy tax gaay parfois do xam fuñu dem ak fuñu ñu dafa promettre woon député yi leen chaque 3 mois. Hmm. dina ñëw wax leen programme gouvernement fiñ toll. Hmm. ñaar yoon lañ ko def xam benn yoon bayiko député yi ñoo leen war di woo sax. waaw daa war a bokk ci li député yi di def. mais loolu amoon na fi comme ni nga ko waxee léegi nii d'une façon régulière euh, koo nattal njël kay muy togg. voilà léeg-léeg boo gisee ne la nga ko nattaloon defu ko dama ko war a defee. war nga ko war a laaj voilà te loolu te loolu mooy rôle parce que rôle député hmm. moom mooy contrôler l'action du gouvernement. Hmm. loolu mooy le rôle premier bu député bi hmm. léegi nag. Euh, buñ joon bi mu fi nekkee waxoon nañu leen régulièrement dañu assemblée nationale pour wax leen lii la ñuy def lii la ñuy def lii la ñuy def ñu def ko benn yoon xaw ma ñaar yoon bàyyiwaat ko mais loolu moo waroon a mën a nekk bu defee déclaration politique générale ba pare chaque trois mois peut-être mu ñëw voilà situation bi et cetera et cetera tous mois par exemple mu ñëw def le point wax waaye def le point waxoon nañu ko mais député yi également am nañu rôle appelé ko def def bind bind président assemblée nationale na ko ministre tel ak tel ak tel est-ce que dana ñëw nangam ah ñoom itam dañoo war a job de député yi mais député yi du wax rek moo leen fa bàyyi ah, xam nga commission yi ngay dégg mais député

Sénégal semblant de job nous ñu war job day da faire. def mais faire semblant de travailler foofu la ñu et on fait trop semblant de travailler dans ce pays. Coupe du Monde Qatar 2022. Eux, ils ont certainement bossé puisqu'ils sont arrivés en demi-finale. Euh, Croatie et Argentine ont annoncé aujourd'hui, ce soir, beaucoup d'informations. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire, mais c'est juste pour corroborer ce que je suis en train de dire. Il faut bosser pour en arriver à un certain niveau. Euh, déclaration politique générale pour Amadouba. Euh, Sud Quotidien, le PM est esquive le vote de confiance des députés prévu par l'article 55 de la Constitution, Yahui et Walou déposent leur motion de censure ce jour. La question du troisième mandat encore agitée à l'Assemblée par Aminata Touré et compagnie, Amadouba sur cette question réplique la question relève de la responsabilité personnelle du président. Aminata Touré euh, Amadouba waxal troisième mandat bi président dina ko Amadouba tontou ko ko euh, wax concerné ko neexee mu def. waaw wax na ko sax euh, wax na loolu mais am na tuuti tuuti tuuti lu mu ci tontu tamit waaye daanaka lam ca tontu sax ay kàddu yoo lu mu teg nii ci kaw rek ndax nee na euh, dafa am loo xam ne lii nit ki ci boppam la yitteel. te tamit wax na loo xam ne waxoon nañ ko fii Amadou Ba nee na ba léegi Macky Sall neewul damay def troisième mandat. Hmm. ña nga woon ña nga woon fan yemoon. Hmm.

yoo xam ne man mën nga njort ne parce que ñi ànd ak Macky Sall moom dañoo bëgg mu toogaat mm. loolu moom kenn du ko werante ci rajo laa nekk mm. ñëpp ñu nekk autour de Macky Sall fii directeur CICES bi ba mu fi ñëwee ba ma ko laajee mm. dafa ne ma man Macky Sall mooy sama candidat Mame Mbaye Niang bi ma ko laajee waaw Mame Mbaye Niang bi ma ko laajee dafa ne ma man tamit mooy sama candidat maanaam waa APR ñoom dañoo bëgg a sampaat président Macky Sall pour mu nekk seen candidat am nañ ci droit mais attends loolu waaw nekk majorité yëpp yëpp waaw dañu waxatuñu sax léegi dañu ne par force Macky Sall dina présenté wu 2024 waaw léegi nag gannaaw ñoom ñëpp ñi ànd ak Macky Sall nee nañ par force dina présenté te Macky Sall waxul le contraire. waaw mais mais xam nga da nga naan waxagul le contraire xam nga problème bi fan la nekk <laughs> waaw. stage daal nag xam naa yéen da ngeen da xaar date

kuy wax waxi problème de troisième mandat. waaye ñi ko wax ne ko doo ko def ñëpp tàqali ko nag ñoom. waaw waaw d' ko def ñëpp ñoom. loolu la leen trompé waaw waaw waaw léegi léegi continué dama la doon dugalal loolu. waaw loolu waaw <laughs> léegi léegi moom comme moom waxoon na ne du ko def te déggaatuguñu fenn fu mu waxee ne dama koy def waaye am na ñu koy waxal ne ko na nga ko def mais mu leen di mu leen di gën a kopp kopp mais ñooñu duñ Macky Sall ñooñu jiituwul réew it ñu ko naan doo ko fi defee mu tàqalikoo a wax mooy dégg ci kaddu président mooy du ma ko def mhm. léegi nag bu ko defee ñu xam ko deful tam ñu wax bu bu ko bu defee wax waxet nag ah c'est la c'est le nga baal ma mhm. ku jàngal kii Macky Sall

wax waxet gi nga waxoon nii fu mu jógee. Abdoulaye waxoon na ko. toog na ne maa waxoon waxet. waaw n'est-ce pas. Mhm. yow nga ne ba léegi Macky Sall moo ne woon ne. moo ne woon du ko def. te déggaatuma feneen fu mu waxee da koy def. damay jàpp ci wax ju njëkk ja rek man. am foofu bu fekkee nag dem na ba mu yàgg mu waxaat ko nag ma ne ah. Njaga ah yaa fi lii kat. daa am daa am daa lu bëree bëri yu ci mën a xew. yoo xamante ne sax mën naa doon ay lay. ci du ma ko defam jooju yëpp. wala ñu jéem ko koo layale. xam nga léeg nga dégg ñu delloo la ci euh, constitution bi ne la waa conseil constitutionnel ñooy tracé président Macky Sall bi mu faloo dane woon day wàññi mandaam def ko juróomi at demee ba ca ba ca cëppaa ndaw la daa wax ne conseil constitutionnel ñoo wax ne mënoo koo wàññi mm. moo sañ-sañu wàññi ko mm. tey jii itam conseil constitutionnel bu ñu yoonalee ne am nga sañ-sañu laaj mm. te ñu jàpp ne consi maanaam tey constitution bi moo féete kaddu Euh, moo féete kaw kàddu nit bu boobaa ñi bëgg a layal lool loolu mën naa nekk buntu ngir ñu layale ko ak nekkaatam candidat hmm. beneen bi ci topp mooy man bu may xam nga xam nga xam nga président moom lu ko ci waaye wax tooñ ko hmm. lenn daal la ñu yóbbee mooy léttu ñu firiwuñu hmm. xam nga olofay wax ne létt ma baa nga firi ma eh, maanaam boo ma ci defee lenn ma noppalu moom nag du ma ne waaw du ma ne déet daf ñoo yóbbu ci ci xiñ caxañ joo xamante ne léerut xamuñu nan lañ taxawee waaye askan wi ci boppam wala ñi ànd ak moom seen démarche ni muy doxee démb boo seetloo Amadou Ba bi muy wax wax na wax joo xamante ne mënoo koo féetale fenn ndax it moom dafa mel ne mi ngi sóoraale boppam di sàmm moom ki mu doon ak doon kilifa ci boppam nga xamante ne du nangoo doon nagu sarax wi maanaam kenn du ko jiital mu nekk ca kaw ñu fallaxe ko te yow génn ko loolu lañ naan l'agneau du sacrifice waaye bi mu waxee ba noppi boo seetloo ku mel ne far ba maanaam li Amadou Ba wax moom dafa bëgg ren maanaam tey ngas mi gën a xóot bi mu ñëwee dafa taxaw ne ñun Macky Sall mooy suñu candidat yëmut ci loolu waaye mu engagé ñële wane ne du man dong mooy man maay wax waaye ku d'accord ci li may wax jugal taxaw hmm. nga xam ne mboolem député ya fa nekk dañoo jóg taxaw wane ne Macky mooy ah. suñu candidat hmm. mais Mbacké xam nga ñooñu li nga wax dëgg la de loolu d'accord nañu ndax ah. lu leer nga wax mais ñooñu bëgguñu réew mi seen intérêt bopp ak seen poste bopp dong moo tax ñu ñuy waxee noonu mais la réalité est que constitution bi li mu wax leer na nañ ay tubaab yu leer nañ la président Macky Sall liir na ko nee na woon yooyu bu ma ci kenn dugal léegi nag président Macky Sall bu ko jañaxee ba mu dugg li mu kenn dugal foofu laa jëm bu ko jañaxee ba mu dugg wax li bëggut kenn dugal ko ci kenn dugal ko ci defal nànk oustaz li ñuy wax léegi xam nga xam nga ah. yow da ngay wax constitution leer na ñoom ci boppam ak constitutionnaliste yeeg ñu ñu ko sañ a wax tamit xam nga dañoo bëri féewaloo ñii ngi naan euh, sept ans la defoon cinq ans la def léegi am na beneen droit encore beneen cinq ans ñële naan non ñaari set naa la finalement do xam sax euh, à quel à quel sens te vouer quoi mais euh, lu mu ci mënta doon mooy euh, ñaar la defam ben la defagum

si mu euh, toogaat. waaw ñoom nee nañ demande nee nañ demande. demande sociale non loolu xam nga la bala nga koo. waaw askan woon la non ah. non loolu xam nga ki wax ah, loolu. askan wi tamit xam nga askan wi. tamit waaw waaw waaw mais xam nga xam nga askan wi. loolu ñu ngi koy ñu ngi koy xamee ci urne yi. loolu moom amaguñu nattukaay bi c'est-à-dire n'a pas les baromètres amuñu ko mën a natte euh, lu dul dem ba ci élection ñu xam ba xam lii askan wi bëgg def nañ ko wala defuñu ko bu demee ba ci élection ya bu fekkente ne moom dafa takkaat ndomb ak tànkam ne dafa bëggaat su gañee bu bu bu bu defee élection bu gañee ñu la ah kon nag askan wi yéen a ko bëgg yéen a ko xalaat yaakaar naa sax askan wi sax ba wala boog opposition bi moom am na ci ñoo xam ne Macky demandé sax moo leen gënal hmm. maanaam ni ñu koy poussé ci ñag bi nii ndax dañuy dañuy bu bu baat boobu jël ko campagne ko ak askan wi gën koo mere ci loolu hmm. mooy gën a gaaw a jeexal euh, maanaam nguuram ci mu bañoon nekk indiwaat maanaam ëffal ay mbër yu bees maanaam ñu bëre ndax moom xam nga tey ki nga yàgg bëreel yàgg koo songu da ngay jàpp ne am na foo xam ne boo fa jaaree mën nga koo daaneel tekkam gii mu ne tekk ci wàllu calcul yu baree bari lay tekki hmm. xam nga tey ku mel ne Mimi am na lu muy am na lu muy cax saa su nekk nga xamante ni da ngay ah, ci sa xalaat da ngay jàpp ne am na ñu nekk ci biir Benno Bokk Yaakaar te d'accorduñ ci ci Macky Sall euh, nekkaat candidat absolument ñu baree bari ñoo xam ne d'accord waaw waaye nag Euh, maanaam président it dafay dafa xaw a yéeme ci politique ndax gannaaw dañ ñu bërit ci at yële ku ne doo ko fi defee mu tàqalikook yow koo xamante ne nguur dalaa yitteel dootoo waxati dara am na ñoo xam ne fi mu ne dañoo préféré ne ci yàlla ne patt ci ruq bi euh, ñoom di xéewlu àndataan naa ba xam fu wàllen di mujj ki gëtëm gannaaw boo nee doo ko fi defee mu tàqalikoo ak yow hmm. te boo nee da nga ko fi defee wala nga nekku saagakat bu subaa nga nekk ministre hmm. ko euh, maanaam def kook demande askan wi laak demande nangam demande nangam am jàmm moom hmm. moo gën lépp te nag jàmm ci am réew euh, daa bokk ci li koy maye. Hmm. mooy nit ñi wóolonte gis nga maak yow bu ñu wóolonte wut mënuñoo am jàmm hmm. te ñàkk a wóolonte mooy nga wax ma dara pare ma génn daane ay wax la rek maanaam maanaam maanaam wax ji teguwut fenn hmm. nañ daje bërëb sàngam ma a jërut may dem parce que laa du ñëw danaa la defal nangam ma ne loolu jërut duma sa doom ndax Nicolas du ma ko defal hmm. Hmm. loolu mooy ñàkkal fayda wax gis nga réew mi dañoo dañoo xaw a weddi suñ bopp ci kàddu ba Maodo mii bu ma waxoon danaa la may cinq dama ko naan waatal hmm. c'est-à-dire danaa la may cinq mille ji dong doyut faaw mu waat ma door koo gëm te bu njëkkoon ci pourtant suñu maam ñoom bañuy respecté kàddu léegi waat yi sax mooy loolu waaw même même day waat sax lu ko gëm mais bañuy respecté kàddu nit de léegi man jàpp naa ne président Macky Sall fi mu taxaw ci àdduna bi yëpp wax fa ne euh, euh, du ma def lu ëpp ñaari mandat ah, man soxlaatut ay loi ndax man jàngumay tubaab soxlaatul yooyu waaye enregistrement yooyu yëpp rek ku ko dajale woon teg ko da ngay xëy suba di ko déglu ba ngoon jot ah. gis mu naan du ko def du ma ko def du ma ah, def lu ko fi du ma fi léegi loolu bu ñuy waxaat dinaa ko def bu ñuy waxaat dinaa ko def yan baat lay jëfandikoo moo ma jaaxal foofu nag maanaam daal ci wan làkk la ñu ko war a voilà xam nga moo ma jaaxal très bien Mbacke gis nga nag tey ji merci beaucoup gis nga tey président Macky Sall bu bëggoon a ne damay defaat samp sama ndënd ban ban ban ban ban levier lay mën a yëngal di ko yëngal pour convaincre nit ñi foofu lu jafe lay doon moo tax yàlla yàlla ndar kepp ñu daf yàlla daf ñoo ndar képp ci alquran ne li ma taquluuna maa laa tafaluuna ba noppi daa ne kabran maqtan indallah maanaam Nicolas loo lu tax yow ngay wax loo xam li lii nga wax da lay wóor na yow doo ko def mm. mais da nga ko wax rek sànni ko ci bët nii rek benn balle de sonde mm. mu ne loolu c'est une maanaam bakkaar bi yi gën a rëy ca la bokk mm. mais te yaakaar naa ne nag xanaa nag même politique nag lu ñu politique politique politique nag mm. xanaa nag am na ci ñoo xam ni lu ñu dee dee dee dee mm. am nañ tuuti même bu doon benn micro ci gëm yàlla wala xam ne bis dana ñëw nga jóge fi wala dee bokk mais ko xam ne yow sa njariñ ak sa poos rek xaalis rek yow comme sa poos ngi fees bay boo réew mi tàkk yow sa yoon nekku ci naa ko jalaat mu nekk booy suñu candidat ñooñu république bi intéressé wu leen seen intérêt individuel personnel moo leen intéressé c'est doy na waar ak euh, lu mu ci mënte doon en tout cas euh, bëri na ci man ak yenn sumay morom wala ñu bëri ñu doon xaar euh, démb wala yeneen bés yi sax yi ñu annoncé woon ci wàllu wàññite ci dund bi parce que bëri na sénégalais yuy euh, dundu euh, jafe-jafe yu métti ñu ngay wax wàññi wàññite euh, dund bu seer bi et tout sa am na pàcc ak pàcc yu bëri yoo xam ne nee nañ wàññite mm. boobu ba léegi sentiruñu ko lan moo nar a nekk solution ah, muy opposition muy pouvoir comme jël nañ ay ah, décision wàññi ba nu mujjee voilà wàññi ba ma waxoon ci toll wàññeeku na ah, kay am na am nañu ay commerçant yu réticent ah moom waaw non moo tax ma ne loolu loo gis dialogue la waxtaan maanaam yooyu waroon nañ ko mën a waxtaane bu dee dafa am lu ci war a yokk ñu yokk ko ci bu dee dafa am luñ ci war a wàññi maanaam ci maanaam ci aspect yooyu ñu déggoo ci ñoom. opposition pouvoir maanaam. yi hmm. ah, yéen pour njëriñu askan wi quoi. voilà ñoo bokk réew loolu dana kët ne jon waaye waxi mandat ak ay élection rek. voilà maanaam rek maanaam maanaam di ñëw ñu wax ay yu yi par force dañuy ah. def troisième mandat alors que askan wi bëri na ñuy dund yenn xeetu jafe-jafe yi te ñu ma doon ko mën a waxtaane ba xoolal sécurité bi xoolal la xew keroog ca Mbuur les gens euh, en sont en insécurité saa su ne pourquoi est-ce que duñu waxtaane mais en termes de sécurité naka la ñuy renforcer suñu police ci ay jumtukaay ak yu ni mel bu ko defee ñun tamit euh, ci gox yeeg goxaat yi naka la ñuy renforcer suñu ay surveillance ak yu ni mel pour que askan wi aussi mën ci gis seen bopp loolu opposition ak pouvoir mën ñu ci waxtaan ah, déggoo ah, loolu jaadu c'est-à-dire que yow Nicolas li maanaam lii moo waroon a nekk cest à loolu noonu mooy li war am ñoom ñëpp ndax bu dee intérêt intérêt général moom ah. opposition bi pouvoir bi yëpp ci war a ànd hmm. maa ngi gis rek ndeysaan barki démb fii ñu dëgër piir bi ñu dëgër hmm. hmm. piir bi ndax comme boo leen dëgër piir ñu ñëwaat amuñu fu dem loolu problème boo xam ne warees na ko mën a régler nag ak yeneen ak yeneen te eh, ñi fi ëpp problème mooy ñi yaakaar ne ñu mm. bari ci ñi ñu jiite réew mi da leen a ñor mm. man bu may xool ba mu yàgg dama naan ñii moom seen bopp leen ñor mm-hmm. ndax lii ñuy xëccoo bu diisoon yaakaar naa kenn du ko xëccoo yenu yen bi mu diis nga mm. yenu ko ab diir ñi war laa yenni ngay continuer waat naan yen leen ma far forcément leen di liggéeyal far forcément leen di defaral ah. far forcément demal leen marché toggal leen añ jàpp ma ne toggal ñu ngir ñu yi ñuy wax nii nga xam ne moo ne këtt ne jonn dañ fee taxaw andil ñu ay yëf naxe ñu ko hmm. tegal ñu fi ay chiffres yu dul jeex dajale fi commerçant yeeg jëndkat yeeg jaaykat yi hmm. wax ne wàññi nañ nangam wàññi nañ nangam wàññi nañ nangam man de man ak ñi mel ne man hmm. ca la jënd di ko yëg yëguñ ci ay wàññi wàññi la ministre bi waxoon ak président wax ko yëgaguñ ko ba nëga ni léegi nag mu des nag location bi ñu dañ ko yóbbu assemblée ndax la encore ci nit mais ci ñëw gën ko yaatal merci beaucoup à l'équipe digitale merci à l'équipe technique merci à vous de nous avoir suivis toujours un plaisir pour moi de vous servir à travers Ndekili émission Nandi merci aux sponsors qui vous ont accompagné et merci aux partenaires médias également merci Sénégo jaajëf jotaay et TV sama xel également ci latir bu Info merci bonne journée bon appétit n'oubliez jamais viser la lune salut joyeux Noël à demain tangal bégee ak yi boisson punch ndox mu sell mii di Waalo